وادفع الوباء والبلايا كلها هلاوتي شربها واكلها واجعل حليفنا حليفنا امنا وكن بيدك في لندامنا واجعل خير من الجاهلين عن سوى بها axusbillah min asheitan irajim bismillahi irrahman irrahim alhamdulilahi rabilalamin wassalaatu wassalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin makin waala alihi wa saxbihi dawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokki jullit yi muy seetaan ak déglu bokki taalibe yi yépp waaye di leen massawu itam ci tolluwaay bii ñu toll te mooy mbas mi nga xam ne am na ci àddina si ñu di ko wax coronavirus maa ngi ci massawu bu baax a baax a baax ah mbas nag lu daa am la ah, xëy na nii mu amee néew na mu amee noonu mu yaatu gi nga xam ne yaatu na yaatu na ko yaatu gi it gannaaw dogalub yàlla mooy dafa fekk jamono fi mu toll ndax dem beeg ñëw bi ak jàppandeg dem gi ak tasaarub nit ñi ak ñàkk nit ñi loolu lépp da cee feeñ loolu moo tax ni mu gaaw a tasaaroo mu tasaaroo ni ndax daa dañ ko dégg ci ab gox ba mu jeex ca gox booba te sax yàlla mën naa dogal du jàll ca gox yi ca des dëgg la nag daana metti lool ndax fii amoon na fi mbas moo xam ne li ëpp ci nit ñi walla li ëpp ci dëkk yi dañ leen a lakkoon ak lakk dëkk ya génne nit ña ñu dem feneen ci yeneen barab bari na tey ay xabru yoo xam ne yaa ngi koy gis ci ay barab mu ci àll moos nekkutoon ci àll waaye ci ab dëkk la nekkoon waaye sax ci ay kër la nekkoon xëy na booba nag xëy na lii médecine àgg dafa àgg gutoon moo tax booba ñoom loolu rek lañ ci manoon kon mbas moom lu fi yàgg la lu métti la am na ci jamono yonent bi am na ci jamono yu Sëñ Tuubaa mos ñàkk am daanaka jamono ju ne am na ah mun nag xay na daawuñu ko amul amuñ amuñ ci woon dégg waaye nag ba tey itam ñu fi desandi nangu ñaan yàlla mu may nu ci ñu bañ cee weesu ak dégg ci barke Sëñ Tuubaa gannaaw bi leen ci masaw ba noppi it nag di leen soññ di fàttalante ak yéen ndax mbas mi kat bi nga xamee ne sëñ Muntaxa mi fi nekk tey nekkal fi Sëñ Tuubaa yàlla wala mu dégg mbas mi taxawaay yi ci war def yëpp def na ko ndax bi mu ko déggee jamonoy Poroxaan wàcceelu na ay kaamil wàcce ay kaamil moom ci boppam ñaanlu ñaan ci moom ci wax na nañu ñaan yàlla delloo mbas mi naaw moom fa jógee itam ci wàllu saayir la waroon def digganteem ak réew mi def na ko ndax ñi nga xam ne ñoo fi ne ñoo nañ ci bopp réew mi ne ñooy taxaw réew mi yëkkati na alal ju bari jox leen ne moom moo ko duggee ci liggéey bi nga xam ne moom lañ bëgg a def ngir taxawal mbas mi ak bañ mu tasaaroo moom ko defee ba noppi it teewut mu digle li nga xam ne waa kër docteur xalaat nañ ko ci mbir mi ah sëñ bi wax na ne nañu ci ànd ak ñoom ndax ginnaaw ñoom seenu seenu seenu seenu seenu liggéey moom lañu ñu jàng te moom lañu xam dañu ngi cay dox la ñu wax nañ ci ànd ak ñoom la ñu ci wax mooy nit ñu nañu fexe ba soreante nit ñi nañu fexe ba am lu ñuy dëpp ci seen gimiñ donte sa kaala la ngir booy wax ak nit bu fekkee loola mi ngi ci yow mu bañ a jàll ca kooka mën naa am itam bu jógee nekkee ca kooka waroon lu ñëw ci yow loolu xëy du ñàkk lu mu ca mën a wàññi mbaa du jaar ci sa bakkan mbaa mu bañ jaar ci sa gimiñ ñuy soriante ci jàkka yi ba nga xam ne kenn ku nekk doo mën a wàll sa morom muy xam da ngay julli julli juróom wala da ngeen di naafila ñu tere it xew yi xew yi nit ñi wàññi ko bañ faa nekk di tasaaroo bañ faa nekk di dajaloo waxtu nekk loolu itam sëñ bi wax ne nañu ko wattandiku. kemtalaay ni ko waa kër docteur waxe yi nga xam ne moom lañu waat di laal tam yu mel na lii loolu itam baax na ñu di ko laal suñuy loxo ngir muy wàññi li nga xam ne mooy li nga xam ne dafa war a jógee ci nit dem ci nit dana ci wàññi dana wàññi aslëf ak di raxasu saabu ak njàm ak eau de javel boo xamante ne itam dana wàññi micro yi bu baax a baax yooyu yëpp daal maa ngi koy fàttali na sëñ bi waxoon na ci lu bare bare àgg nañu sax jàkk yi itam di wax ne nañu ko bàyyee ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci jàkk yi lu demee ne noddukat yi ak imaam yi ak na lu mel ne bu fekkee fii fii Tuubaa la nga xam ne waa am na fi nga xam ne ñoom waxtu nekk ñu ngi ci biir jàkka ji loolu itam bàyyee leen ko te xam ne jàppe ko ngànt te xam ne lislaam moom yàgg naa nangul nit ngàntam àgg na ci sax di wax ne bu ñu yàq sama liggéey nag ndax ginnaaw loolu moom euh, sama ndigal la tey ndigal li ma ci jublu mooy bëgg taxaw diggante bëgg a taxaw ci diggante bi taxaw temm mooy lislaam am wàllam wàllam kenn bañ koo jalgati muy julli ci jàkka ji ak nodd yi ak julli waaye itam li nga xam ne waa kër docteur wax nañ ko te wax ko ngóor gi te ngóor gi xalaat ne noonu moo war a am loolu itam ñu respecté ko taxaw ci diggante boobu moom la sëñ bi bëgg a def ba tax na kon nee na nañu góorgóorlu bu baax te bañ a yàq am liggéeyam wax na ko ci làmmiñu ñu koy waxal ñëpp jaar na ci seen i làmmiñ kon jërëjëf yàlla ko fi yàlla euh, jële ñu ngi baal ñëpp àq di balu ñëpp àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. في لقدامنا وجل الخير من الجاد عن السوى بها عن الأبادي